Paulus, ñu ñëw ci sa diggante ki nga xamanteni modi président Macky Sall gis nañu fan yi yépp da nga nekk di ko euh, défendre ñi nak ñu ngi naan président recevoir na la ñi ñu ngi naan président jox na la xaalis ñi ñu ngi naan président jox na la auto lépp réew mee ko wax nga ñëwaat ñu ci ay leeral naka la demee parce que man musuma gis président sama aduna gisoo ko bi waxal ben. Ben. musuma gis Marème Faye Sall sama aduna ñaar doom laay gis Amadou Sall parce que dama koy fekk fi muy ko ko ñuy ma dem di waxtaan ak du dëgg. dëgg Macky mosuma ko gis. Mhm. mosuma gis Marème Faye Sall. Mhm. mais tamit nit bu nit bu dëgg xama ku nekka da lay jëg xam nga président da lay jëg. dëgg dèjà da lay jëg. man Macky Sall damaa jëg. da parce que ba ba ba Macky Sall nekkee président ba tey si laay tukki. Mhm. waxal benn. benn si laa gën a xew. ñaar si laa amee voiture. ñett si laa xam si laa gën a xam luy daali. li daali xanaa dooge wal xamoo daali yaa ngi xam naa. leeralal ma ko. daali mooy ci laa gën gënee amee succès bu baax a baax. Mhm, ñeent. kon man du ma nangu ñu koy wàccee. Mhm. parce que nit mun nañu ko wàcc ma wàcc xewi mun nañu ko wàcc li ma doon def ci dëkk bi du ko defati. dëgg la mun nañu ko wàcce sama xew gën a su ma defee dara jàpp ma wala su ma defee foo li may wax ci télé bi dañu lay gën a jàpp mais mi ngi gis mi ngi tànkam lu mi li ko ñor mooy liggéey réew mi. kon am na droit man ñaanal Macky Sall xam nga ku nekk la la dimbali da ko ñaanal. man li xam ci moom moom laay wax moom ba aw ma pour nga xam ne xaw ma affaire affaire politique. non non merci mais am naa droit ñaanal man sama président. am nga si droit kay. ku nekk yow tey comme bu la sa papa may xaalis doo ñaanal. bu baax. saya bu damay xaaj waxu ñaan bu baax Macky su taxee ma gën xew mu dimbali ma ci réew mi di dugg di dugg métro wala tram lool amo droit ñaan ko yow sa papa ba nga xamee sa papa ba tay mu judd wala sa yaay ba ba ngeen ko xamee ba tay mu ngeen gis dugg ci terre bi mu ngeen am terre ci réew mi rasul am ah rasul am mu am po Kër Massar fo dëkkoo ma Massar non non Kër Massar ni meloon gisee ni meloon waaw mu ngaa dem Kër Massar mas na dem Kër Massar kay pont fo amono pont amuton eh, tali yi ni mu yaatu amoon na ko. déedéet. ah déedéet. mbedd bi dëkk bi ni ma amee sécurité léegi amoon na ko. déedéet. kon nag amu amu danoo amul droit ñaanal Macky Sall. mais mais loolu lépp liggéeyam la parce que moom moo nekk président moo jiite réew mi. mais Pawlish ba tey waaw mais xam li problème bi ah. Mhm. nit buñ buñ liggéey da nga koy bàyyi mégal liggéeyam. ah ni leen di waxoon sunu maam Abdoulaye Wade di liggéey. Mhm. di liggéey di liggéey di liggéey réew mi. Mhm. ba ñu génn ko fi liggéey liggéeyam eggul. Macky nag bu jëlee lii mi di ko eggale liggéeyam da ngeen ko ñaam eggale bu ko eggalee ba pare nag bu la neexee ngeen def ko la neex mais doone ko bàyyi am mais Sénégal yi dañoo yabaate mën ta weesu nit ki am na xam ne neex sànni ay xeer woowee ay sànni moo leen ñor mais Macky day liggéeyam boole ko dara ki wax te président day jantal te day njool day am ay lex te Macky li nekk ci moom yëpp mi ngi président dama lay wax suñu borom mooy xool li ko neex mu def dëgg la nga moytuwul. Mhm. parce que waaw parce que parce que yabaate mu tawee su ay doom ñu tëdd mu nekk ci dëkk dëkk bi di liggéey di xool fuy tali mu def fa tali mhm. xool fa amul ñun nii suñu rond point yu yi da nga kon Europe xam naa ne mosoo dem Europe xam naa ni mais mais ñaan nga yàlla dem fa bu yaa comprendre parce que point yi point yi. point yi point yi Europe ni yaatoo loolu la Macky def ñun te terrain bi da nga ko xalaatu am ci àddina terrain basket bi da nga ko mos a am ci àddina. ñun a yow sa maam dafa wuuwa ko ko ko. communiste Coupe d'Afrique. lan moo déedéet xaaral kaay ma ma teewal waxtaan. waaw neex. waaw tey seen famille ak seen famille maam ak seen famille waa kër kenn mës a dégg daale kenn mës a dégg suñu famille defuñu émission man ak yow ñoo def émission dañuy waxtaan seen famille ah. tamit xam ne dina la seetaan après damaa bëgg damaa bëgg dégg ko rek xool ah. ci wax ci waaw waaw waxal rek mais da nga naan famille sa famille yow au moins dinaa imal sama famille waaw waxal sa famille sooy wax ci Macky Sall damay sévère parce que dama dama ñor waaw aca ñëwal ñëwal mais dal jël exemple ci sa famille yow suñu famille laay wax sa léegi waaw suñu famille waaw léegi maa ngi sa jaari xonk na trop léegi ah léegi léegi ma laaj la léegi ma ma laaj la léegi ñun léegi ñun léegi ñun dañoo mës a dégg Coupe d'Afrique xanaa xamoo président da lay jig. da lay jig dëgg la. président da mm. am na fi président yu mënutoo jël pot. Macky bu toogee président ñu jël Coupe d'Afrique kon sant suñu borom la. dëgg la te ginnaaw yàlla. coupe du monde bi dañu egg ba ay quart de finale demi finale man loolu leen na ma. Mm-hmm. yaa ngi mais président nga xam président nga jël Coupe d'Afrique. dëkk bi commencé naat. Mhm. mais amuñu droit sant président mais Sénégalais ñoo yabaate ba pare danoo gaaw a gis seen ba danoo gaaw a beew ñoo xamul li ñu bëgg dèjà nit bu liggéey da koy bàyyi mu mu eggali liggéeyam. Mhm. waaye président boo xam su dëkk dafa neex xeer la ñuy fale xeer la ñuy folle ba Macky faalu ay xeer faalu ay ay woo muy jàpp liggéeyam te nag barke alxuraanu karim. yalla yow lay ñaan yow mi jital président xam président yalla yow mi yow mi santane nguur yow mi def ci nguur yalla yow lay ñaan ak say xarit ñom jibril ñu or bu xata dama bëgg ak ñom ak sayyidina omar dama bëgg ak ak malaka yeen yépp yeen ni ku ci naram malaka sax ki malaka moti yow lay waxal yow nga xam da nga sévère ci lay ku fi nara jëre Macky Sall ngir dem rasulullah dal bëkkam rayal bako japp ñam borom man de xaarama ñoo li wax Macky dafa savé da ngay def nak yow gaaw nga wax trop say far ngir dem rasulillahi laax yàlla yow laay waxal yàlla yow laay waxal Macky Sall bu neree bañ a nekk président yàlla yaa na nga ma rey wala Macky bu ñu ko ci jour bi yaa naa génn àddina parce que Macky warta warta ñàkk bañ a nekk président parce que président président li yoon di def yëpp ci président mi ngi koy def président nii na mais day dal xelam dal léppam dal li waral loolu dafa liggéey Macky liggéey la xam ci àddinaam nit ñaa ngi wax mu jàpp ñàmbaram Macky du xuloo Macky du xeex Macky ba muy nekk président dafa ay xeer ak a gis ba Macky Ooh. mosuma eh, président kay boo nekk président kay dangay ñaan suñu borom boo dugg ci jàmm dangay ñaan yàlla jàmm am ci réew mi. waaw surtout réew mi moom suñu réew la waaye réew moo xam ne réew moo xam ne sëriñ ci tëdd. nga bëgg ci ay ay géer yi xam naa nag xam naa nag da ngeen ne yéen gën a naïf ci yàlla bind yéen a gën na ñoo xam ne dañoo intelligent dofuñu jour boo leen ba manqué ba manqué billaahi di ngeen toog ay dafa sévère waay dimbal sa jaaro yi. waa ñëwal ngay doog oh, kii. Pawlish ba mu wax la jum yaa comprendre li dama bëgg ngir dem rasulullah sénégalais yi ngeen mat ngeen mat bu élection jotee ngeen votel Macky Sall nga xam ni troisième mandat da ka war am ci yoon man sax xawma feel mandat waaye liggéey ku liggéey da mandat maçon bu liggéey mandat ba ba sa liggéey jeex la jox mandat kontaan ci yow mhm. mais bàyyi ko may gën mandat waaye Macky Sall bu ne ko président kam nekk président Sonko comme ni ko sénégalais yépp gisee du samay kàddu sénégalais yi nee nañ bu fi jëlee Macky Sall Sonko lañ fii teg ci àddina ci àddina bisu peccam na de kii mi ngi eggali liggéeyam de bàyyi ko may eggali liggéeyam mi ngi barki alxuraanu karim yéen a ngi jàngal loo xam ne ba Macky Sall ngeen dëkk bi dëkk bi billaahi wallaahi yàlla wala sama wax yàlla yàlla su Macky Sall wàccee na àdduna tukki benn ñëpp noppalu un point un tiré loolu laa fet baatu fet furtu baa nee defe mun waa ku xam yoon waa ku gën daas bu nekk pexem waaye wasaare ba ngeen yuri ku du ba léegi làqu leen boobu saakul tabaxoo ko toj ko na laa jafe wasaare TV xoolal bu baax booba saakul tabaxoo ko toj na laa jafe Wassare TV xoolal bu baax moo tax na kenn du leen tee di dem ni naa leen macha allah da ngeen di dem di dem ni naa leen macha allah di dem ni naa leen macha allah di dem